أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala tey ñu jël bopp saar ala imran tey nekk ñaareelu dars ci saar bi samedi passé ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi defoon muqaddima bi ci suratul ala imran tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñuy jël juróom-benn ay yi njëkk ci bopp saar bi juróom benn ay mbokk yi mu ngi jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy taqriru uluhiyatullahi taala bil barahin mooy ay yi nekk sunu kanam day saxal nekkuk sunu boroom subhanahu wa taala yàlla ci jaam ñi ca loolu ci ay tegtal yu leer bil barahin ci ay tegtal yu ne weng yu nit di laal di ci teg bëtam di ko romb guddeeg bëccëg ne yàlla mooy yàlla amul kenn ku yàlla ku dul moom wa nafi al uluhiyatu an gayrihi ay nekk sunu kanam day dàq ñi ñuy askalanele yàlla naan leen ay yàlla ngeen wala ñu koy wootewu naan ñoom ci seen bopp ay yàlla lañ aaye yi day dàq loolu min saairil xalqihi nag ci mboolem mbindee fi nag ci mboolem mbindee fi kuñ fii jiiñ naan ko yàlla nga wala ku fi wootewu naan yàlla la ñaar yooyu benn amu ci yàlla mooy kenn ki subhanahu wa taala amul kenn kuy moom moom rek mooy yàlla aaye yi daf ñuy jàngal loolu ñaareel bi mooy subuutu risalati nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi inzali llahi taala alkitab alayhi ay nekk sunu kanam day saxal nekkuk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nekk nekk ko ak yonent ne ak yonentam yàllaa ko yónni loolu sax la ndax ay dañoo ñëw di saxal loolu waaye yemuñu rek ci saxal na yonent bi yonent la yàlla ko yónni waaye bi inzalillahi taala alkitab alayhi yàlla dafa wane ne yonent la ba pare wàcce ci moom téere bu téere bi di dëggal ne moom yonent bi yàlla ko yónni ginnaaw ba yàlla waxee ne yonent yàlla muhammad yonent la loolu dong doon na doy waaye yàlla boole kook benn téere muy alquran muy kàddoom moom yàlla buy feddali di dëgëral di wane ne moom yonent muhammad yàlla ko yónni sallallahu alayhi wa sallam ñetteel mbokk yi ci li ñu war a jàng tey ci aaya yi mooy iqamatullahi taala alhujja ala ibadihi ah aaya kat dinañu wan ne dinañu jàngal ne yàlla wàcce na ci ñu ñun aw lay aw lay wu leer nañ kenn du rëcc ëllëg dugg aljanna lu dul ci lu leer nga dugg aljanna kenn du texee di ëllëg dugg safara lu dul ci lu leer nga duggee safara ndax ay yàlla wàcc dafa leer nañ leeral ñaari kuréel yépp ñaari wàll yépp fu ñuy teere ëllëg yàlla wàcce na lay wu leer nañ ci jaamam ñi lay wi mooy lan bi inzalil kutub wal furqaan yàlla wàcce na ci ñoom ay téere du benn sax ay ay téere la yàlla wàcce ci jaam ñi téere yi lu ñu fi wut si mooy dañuy wan ne jaam ñi yàlla wàcce ay yonentam tànn ko ci jaam yi yónni leen ci jaam ñi waaye booleeg ñoom ay dalil ay téere yàlla wàcce na ci jaam ñi luy tàqale dëgg ak fen lu leen di génne ci réer di leen yóbbu ci lën li leen génne ci réer di leen yóbbu ci njub di leen génne ci lëndëm di leen yóbbu ci leer luy tàqale diggante dëgg ak fente mooy furqaan fiha bayaanul xaq ci téere yooyu la yàlla leerale dëgg waaye wal baatil ak neen li tax tey nga mën a dégg nit wax ba pare nga mën koo àtte xam ne nit kooku di wax day caaxaan ci dëgg la nekk wala nekkul ci dëgg kooku di woote li muy woote dëgg la wala du dëgg kooku di woote li muy woote jar naa dem wala jarta dem alquran bi moo la koy wax su fekkoon ne nit ñi tey jàpp nañ ci alquran gëm ko ni ko saxaaba yi gëmee woon kon kenn du réer waaye maal asaf nit ñi dañu jël téere bi sànni ko seen ginnaaw yoral seeni bopp seeni mbiri bopp kenn du def ba laaj téere bi kenn du laaj lu yàlla wax kenn du ne lu yonent bi wax kenn du ne mbir mi loolu moo tax nit ñi sànku loolu moo tax nit ñi réer loolu moo tax nit ñi sori dëgg mbokk jullit yi téere bi nag ci la yàlla layalale diggante dëgg ak fen fi kulli suunil xayaat ci mbooleem wàll ci wàllu dund yi su nit bëggee dëgg na ñëw ci alxuraan lépp nag laa wax côté yépp wàll yépp ci wàllu dund économique politique lim leen social wax leen lépp bu kenn noppi yooyu ngeen di wax yépp yàlla orienté na jaam ñi lu tax tey kon jaam ñi sànku lu tax sa jaam yi sànku ci wàll yi te buñ la ne sa dund gi lépp loo sax la yàlla leeralal na ko waaw kon lu fi lu fi indi réer waaye nit ñi ñoo bëggut a jub nit ñi ñoo bëgg a alku ñoo tànn yoonu safara bàyyi yoonu aljanna mbokk yi dinañ jàng tey ci aay yi nekk sunu kanam butlaanu uluhiyatil masih waa jooju ñu naan zizi ñu jàng arab naan ko isa wala almasih ñu jàng nasaraan naan ko zizi wala messi ñi naan yàlla la loolu daf ko yàlla daf ko dàq ci alquran bi aaya yi nekk sunu kanam ne du yàlla du yàlla de lu tax du yàlla li annahu maxluqun ndax mbindeef la mbindeef du nekk yàlla moom dañ koo bind moom jaam la musawwarun fil arxaam yàlla daf koo melal ni munu melale ci biir ruxum ci biir butitu njurukaayu way juróom bu jigéen yaayam ni liir di tëdd ci biiru yaayam noonu la isaa tëdd ci biiru yaayam noonu lañ ko wasinee ni nit di juddoo noonu la juddoo kon naka la nekkee yàlla yàlla amul ndey amul baay yàlla lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad isaa daa am yaay daa am maam am ay nijaay am ay mbokk yàlla amul lool isaa du yàlla mbindeef la mu yàlla melal ci ruxu mu yaayam kasaxiir comme xale bu ndaw nu muy nekkee ci biiru yaayam noonu la nekkee woon sawarahu llahu taala ala ma shaa yàllaa ko melal ni ko neex fa kayfa yakunu baada zalika ilahan ma allah naka lay nekkee kon yàlla ànd ak yàlla beneen bi mooy deena te yàlla du dee wala isaa deewul deena alxuraan moo wax ne isaa deena de wala ana ñi mokkal alxuraan fi ku ma génneel benn aaya buy wane ne Isa deena am nga montre i fàtte naa borom montre bi montre am sax ñëw na tey ku génne ci alxuraan aaya buy wane ne Isa deena am nga montre ñett ñetti loxo ñeent montre yi na laa bëri tey de góor gi xaaral.
am na ay ay bu mu bu mu ci boppam. ma ne ko wa wa Isa tawaffaytanii anta anta.
baaw baat bi dañoo ne moom tawa fayte ne leeral ko waaw man dinaa la faat dinaa la yëkkati am na aaya bu mu ne bu mu ne yàlla ba nga ma ba nga ma faatee ah yaa fi nekkoon ak ñoom nag beneen bi moom xam na ne déedéet salaamun alayya yow ma wulittu wa yow ma amutu waaye nga gis ci Sénégal am na ku ne deewul Hmm? kon Isaa du yàlla aaya yi ñu jàng day wane ne Isaa du yàlla aw ibnan lahu taala wala ñu ne doomu yàlla la booboo gën a garaaw du yàlla du doomu yàlla du ci benn ndax yàlla moo ne moom amul doom lam yalit lam yulad sunu borom nee na man awma doom nee na wax ji saaga bi gën a rëy biñ ma saaga mooy askale la ma doom man yàlla wax jooju moo gën a rëy wax ju ñu wax yàlla mbokk jullit yi yàgg naa leen ko wax ngeen yàgg koo dégg kan mooy xalifa généralu tijaan yi misaal laay joxe dama bëgg ngeen dégg misaal bi mu dëgër hmm? suñ ne woon daa am fee doom te amu fa jabar ku bëgg a dégg loolu buñ ko waxoon bu murid yi buñ ko waxoon bu laayeen yi buñ ko waxoon bu canaba buñ ko waxoon bu njaasaan buñ ko waxoon buñ ko waxoon sa papa buñ ko waxoon sama papa dina sa papa mu ngi fee di ngénte te amul doom amu fa jabar ku ko bëgg a dégg ci ñun loolu nag ñu wax ko yàlla moo tax ba yàlla mu ne yakaadu samawaatu yatafattarna asamaan mi ngi xar wa taxirul jibaal montagne yi màbb lu mu ci teg an daaw li rahmaani walada ndax nee nañ yàlla am na doom te wa maa yambagi li rahmaani an yattaxisa walada yàlla nee na man jomb naa am doom in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahmaani abda te loolu xoolal ñun buñ ko waxee lu ñuy def dañuy feetu yàlla amul doom isaa doomu yàlla mu ne uluwan kabira yàlla weesu na lool taala allahu an zalika uluwan kabira sunu borom màgg na màggaay goo xam ne jomb naa am doom ndax doom ku manqué moo koy am doom ku koy am ku ne ku manqué nga yàlla dafa mat dégg ngeen ñu ne alkamaalu beneen bi mooy ku moom ñëpp looy dee looy dee lenn ki moom lépp ah in kullu man fi samawati wal ard illa aati rahman ñi ci asamaan ñi ci suuf ñëpp ay jaamam lañ kon lu muy dee kenn rek di ko tiitaroo beneen bi mooy yàlla moom lépp lépp ak ñëpp mooy donn lépp moo moom lépp moo fi mujj kon lu mu koy dee dina naan yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp mbokk yi ci tënk juróom benn aaya yooyu insha allah wala loolu ñu wax ci ay àtte moom la ñu fas yéene jële ci juróom benn aaya yi ci bopp ala imran moom la ñuy jël tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يقول المولى ألف لام ميم برم خم خمينين الله أعلم bi muraadihi bi dalika yàlla rek moo xam li mu ci namm te taqaddama alkalaamu ala mislihi lu mel noonu firi ko weesoon na ci suratul baqara falyuraaji ilayhi hunaalika ku ko bëgg mën nga kaa révisé ji ci tafsir bi passé baqara waxoon nañ alif lam mim lan lay tekki léeg-léeg nga gis ay nit di jéem dugg ci loo xam ne wala ñu am tiyaaba daanu yàlla rek lañ ci am lu yonent bi firiwul woon Aboubacar Omar Ousmane Ali yi firiwuñ ko woon boo ko bëggee firi da nga indi sa bopp problème waxal li ci yonent bi waxoon mooy allahu alamu bi muraadihi bi zalik yàlla xam lim ci nam nga noppalu mais léeg-léeg nga gis ay nit di ci di ko jéem a firi mu ne allahu yàlla almaabudu bi xaqin ki ñu war a jaamu ci dëgg mooy allah loolu mooy baat bi allah li muy tekki mooy almaabudu bi xaqin ku ñu war a jaamu ci dëgg kon am na ñuy jaamu ci caaxaan am na ñuy jaamu ci fen am na ñuy jaamu ci réer am na ñuy jaamu ci parce que dañ leen nax waaye almaabudu bi xaqin ki ñu war a jaamu ci dëgg nga ne ah ñu ne la mooy allah sunu borom ndeysaan allahu akbar allah arrab tabaraka wa taala sunu borom wa maanaahu li muy tekki moom baat boobu mooy allah mooy al ilahul xaq yàllaay dëgg allazi laa yastaxiqu al ibaada siwaahu yàlla ji nga xam ne kenn warta jaamu yellul daganul rafetul ñaaw na xasaw na nga jaamu keneen ku dul moom siwaahu walisa mu ne loola tax fastarahul ulama boroom xam-xam yi firee ko bi annahu moom yàlla almaabudu alxaq mooy yàlla ji ñuy jaamu ci dëgg keneen koo jaamu rek dangaa réer bu ko nangoo moom tamit réer na yàlla rek baatu jaamu yàlla moo ko moom loolu foog mu leer ci ñun amul kenn ku war a nangu wala ku war a jaamu ku ñu war a jaamu ku dul yàlla toroxlu suufe suufelu wàcc sa bopp yàlla moo ko moom kenn moomu ko ku du yàlla am waroo nuyu nit sax di simmi sa mbax ne loolu wirul fenn saa yoo ko defee bokkaale nga ak foo mën a dugg nag yéen a ngi nii ci jàkka ji sol seeni mbax ne wala kon nu ngeen duggee ci saalu nit simmi seen mbax ne toroxlu la loolu yàllaa ko moom ban néeg ngay dugg bu gën a foor jàkk wax leen ma ko dangaa gis néeg bu gën a foor jàkk gis ngeen néeg bu gën a foor jàkk amul kon yéen a fi duggee ba pare sol seen mbax ne kon nu ngeen duggee néeg mbindeef seen morom summi seen mbax ne pour kan nga tax nga summi mbax ne pour kan la pour moom bokkaale nga bokkaale nga loolu nag bu yeboo ngeen bàyyi ko xel yàlla rek rek rek la ñuy jaamu kenn warul toroxlul ku dul allahu subhanahu wa taala moo tax mu ne al maabudu bi xaq ki ñu war a jaamu ci dëgg soo bëggee xam mooy kan mooy allahu mooy yàlla mu ne laa ilaha amul benn buur amul benn yàlla bu nu war a jaamu jaamu gi nekk dëgg ñàkk a jaamu nekk lor illa huwa kudul moom yàlla subhanahu wa taala laa maabuda bi haqin siwaahu kenn warta jaamu kenn kenn kenn kenn kenn kudul moom kenn warta jaamu kenn ku dul allahu subhanahu wa taala laa maabuda bi xaqin siwaa loolu moo tax nit ñi war na leen dellowaat ci tawxid war na leen dellowaat ci kennal yàlla ci diinay kennal yàlla bokk na tey ci li taardeel nit ñi mooy yàlla ak yàlla ak yàlla kese kese kese moom sénégalais yi mënuñ koo dékku sax nag mënuñ ko nangu boo waxee sax yenn saa yi ñu ne loolu dafa diis lu lu lan moo oyof kon yàlla rek laa ilaha amul benn buur illa huwa kudul moom yàlla subhanahu wa taala alxayu mooy aji dund ji dul dee zul xayaat almustalzima bi iradati wal ilmi walsamci walbasar walqudra alxay yàlla mooy kii dund du dee mukk mooy boroom dund gu sax gi bu ànd ak nammeel ànd ak xam-xam ànd ak gis ànd ak dégg ànd ak kattan waaw mooy yàlla keneen koo fi ne yàlla nga bisa ngi ñëw ñu ne la bàmmeelam a ngi nii wala ana ñi ngeen fi déggoon ñu naan leen yàlla rek yenn saa nga dégg ñu ne diw yàlla la di yuux ana mu ana bàmmeelam kon kay du yàlla dañ koo tooñ du yàlla yàlla du dee moom rek ñépp dañuy dee ba mu des moom kon na leer ci sunu bopp ne yàlla moom mooy kiy dund alxay naam waaye alqayuum mooy boroom dund gu sax gi nga xam ne moo taxawee lépp alqayim ala kulli maxluqaat yi moo taxawe mbiru jaam ñépp di tarbiya ci yar leen ñuy dund di lekk di màgg wa riaaya moo leen di sàmm wal xifz moo leen di wattu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu li yëpp yàlla moo ko moom subhanahu wa taala moom ak dundam azaliya la amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem wa abadiya ba abadan amul fu mu yem wa kullu xayin gayruhu masbuqun bil adam képp kuy dund ku dul moom am na foo jiitu woon mooy lan danga ñàkkoon hal ata ala al insani hiinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkur jàkka ji ki fi mag ñaata àllam kan la ki mag ci jàkka ji ñaata àllam kan la amul kenn ku mag 1901 ku mu fi fekk 2 3 fu ngeen nekkoon boobu kon yow képp kuy dund sëg dund dafa am fu mu tàmbalee dafa am jamono nekkuu fi jamono di ñëw doo fi nekk yàlla nag amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu abadi yàlla yow sa bas dafa am fu mu tàmbalee léegi mu jeex ak keneen ku dul moom nag ak keneen ku dul yow dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem ba mu des yàlla jalla jalaaluhu mbokk yi kon bu fekkee lool la yàlla rek la subhanahu wa taala doomu aadama day jeex leneen lu dul moom day jeex falisa loola tax laa yastahiqu al uluhiyatu illa huwa azza wa jal kon du jaadu du yell ñuy jaamu am mbindeef koo xam ne mën a loolu boppam dara su bañam di metti sax mënu ci dara pourtant yàlla wane na misaal ba tàyyi yàlla wane na misaal ba tàyyi yaa ayuha nnaas duriba masalan fastamiu lahu ini lazina tad'una min dunillah lan yaxluqu zubaban allahu akbar kooku bu ko yàlla waxul woon fu kër goo ko wax saal boo dugg wax ko ñu ne yow da ngay tooñ yàlla def na yaa ayuha nnaas waxul yaa lazina amanu de parce que ñëpp la bëgg a lancer défi bi su ne yaa yaa lazina amanu yéeféeri dañ naa ñun bokkuñu parce que ñi am ngëm lañu woo ñun gëmul yàlla mu ne yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi kon kuy nit ci nga bokk mu ne maa ngi gaaral déglu leen ma bu baax maa ngi gaaral maa ngi exposé samay kàddu maa ngi gaaral samay wax déglu leen ma duri ba masalan maa ngi lépp déglu leen ko fastami'u lahu déglu leen ko ini lazina taduna min dunillah ñi ngeen di woo bàyyi yàlla ñi ngeen topp bàyyi yàlla mu ne lan yaxluqu zubaaban defaruñu weñ weñ yi dinaaw la wax weñ yi am ay laaf dinaaw yàlla mu ne ñooñu ngeen topp defaruñ ko xam nga lu garaaw mu ne weñ bi bu këfee dara ci seen góom mënu ñoo jàpp weñ bi ne ko delloo ma ko moo tax xoolal lu mu teg ci fin aaya bi du fa taalibu wal matlub kii topp ak kii toppaate ñoo yambare yow mi topp ku yambare nga ki ngay topp ku yambare la xam nga lu xew mu ne wa ma qadarullaha haqa qadri da ngeen a màggalul yàlla rek bu ngeen ko màggaloon xam ne mooy yàlla loolu alxuraan la ay pourtant ay yi ñu indil tawhid ñu ngi ne weng ci alxuraan du jeex waaye ñun dañoo alku parce que suñu yoon ci alxuraan loolu yàlla rek moo ko ñemee wax ki ngay topp defarul weñ su weñ këfee ci góomam dara mënu koo indi ku yambare la yow ku yambare nga yàlla moo ko wax de du fa taalibu wal matlub yéen ñaar ñëpp wa ma qadarullaha haqa qadrihi màggalu leen yàlla ni ngeen ko war a màggale parce que bi nga ñëwee ci moom daf laa waroon wax ne man duma yàlla nga dem topp yàlla yooyu bi ngay dem ci moom xamal nga ne kii du yàlla mi ngi ak ay fa ay aajo yu fajuwul munu ci dara day feebar day dundale di deele laaj ko ana maamam wala baayam dee na te léegi nga gis mu dee kon yàlla mooy dëgg lu dul yàlla rek du dara ixwatal imaan sunu borom subhanahu wa taala mu ne allahu yàlla laa ilaha amul benn yàlla illaa huwa kudul moom alxayu mooy kii dund alqayuumu moo fi sax moom yàlla moomu nazzala moo wàcc alayka ci yow muhammad alkitaaba téere boobu ñu naan alquran waaw yàllaa ko wàcce lii leer na sunu borom subhanahu wa taala moom moo wàcc alquran alquran du waxu muhammad waxi yàlla lan la wax nazzala wàcce na alayka ci yow mii muhammad alayka ci yow mii jullit bii lan la wàcce mu ne alquran waaw yàlla bu mu wàcce alquran léegi amul lu ñu ko war a doyee yàlla day wàcce alquran rek pour ñu def ko benn téere boo xam ne dañu ko war a def ci bibliothèque yi quoi ku am sa bibliothèque rek dem jënd benn kaamil teg ci wala ku am sa oto bu bees rek daal di koy def ci ginnaaw quoi wala nga sa oto nga def ko ci kanam ndax police yi duñ la jàpp wala nga def ko benn téere barkeelu doo xëyee rek raay def sa kanam wala nga aj ko ci sa kaw table fi ngay jaayee ndax njaay mi jar loolu kese la wala gis ngeen sax léegi mbër yi mbër yi moom la ñuy yóbbu ci stade yi dégg naa seen combat bi passé dañ doon saraxe ay kaamil ci biir dégg naa ko de dañ doon saraxe ay kaamil ci biir stade bi wala gis ngeen gis ngeen gis ngeen léegi alxuraan foofu lañ koy yóbbu kon ñun xamuñu taxoon alxuraan wàcc xamuñu ko loo moo tax duñ ci jëriñu parce que téere bi fi mu war a tegu lan ko tegul dañ ko joxul gëdd joxuñu ko palaasam te yàlla daf ko wàccee nazala mu ne wàccee na moom yàlla alayka ci yow muhammad alkitaaba téere bi naam muy alquran bil xaq masxuban bihi laysa fihi min al batil lépp nekk lu wér kenn amul lenn caaxaan ak lëndëm lu ci nekk fa ayatuhu kulluha aaya yépp yépp musbita day saxal lil uluhiyati llahi taala naafiyatun amma siwaha aaya nekk ci alquran yépp day saxal nekkug yàlla yàlla di dàq lépp lu dul yàlla subhanahu wa taala kon naka la téere bu mel noonu yàlla wàcc ci yow muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye mbokk yi téere bi ci lan la ko yàlla wàcce mu ne bil xaq ci dëgg allahu akbar mutalabisan bihi téere bi dafa wàcc ci dëgg ànd ak dëgg is kullu ma fii xaq lépp lu ci nekk dëgg la was sidq la baatila fii amul lenn caaxaan ak neen lu ci nekk fiihi bi ay wajihin min al wujuh ci mboolem anam yi ci mboolem wàll yi téere bi da ngay fekk mu ne keng septième cycle ba léegi muy lancé défi amul kenn lu mën a indi lu raw alquranu karim amul kenn ku fi indi lëndëm téere bi naan jéenu la ba ci kaw dóor la ci suuf ne la li nga indi ay caaxaan la septième cycle ba léegi téere baa ngi fi aca kenn mënu mënu koo romb caaxaan boo indi lëndëm boo indi téere bi raxas ko moom set sànni fële te lu ñëw mu ànd ak moom ba léegi yëf yi di gën a leer ne téere bi téere yàlla la subhanahu wa taala àdduna bu ñëw mu ànd ak ñoom génération bu ñëw mu ànd ak ñoom loolu mooy wan ne waxu yàlla la moo tax téere bi dafa wàcc lan moo ko wàcc bil xaq ci dëgg dëgg koo xam ne lépp lay leeral is kullu ma fii xaq ndax lépp lu nekk ci téere bi dëgg la lépp lu ci nekk dëgg la lu gaa yi weddi weddi weddi weddi lu ñu caaxaan caaxaan caaxaan lu ñu wax wax wax bu nu delsee dañuy xam ne téere bi dëgg la loolu moo lay wan ne waxu yàlla la subhanahu wa taala ixwaan yi mu ne téere bi day laa baatila fiihi caaxaan nekku ci ci mboolem anam yi nag wëral téere bi moom jeex tàmbalil faatiha ba ba nga yegg naasi faram-fàcceel aaya yeeg araf yi lépp dëggal lépp foo ko woo mu wuyu la boo ñëwee ci science mu ñëw boo ci xam-xam boo indi boo ñëwee ci médecine mu ñëw boo ñëwee ci géographie mu ñëw boo ñëwee ci histoire mu ñëw boo ñëwee ci mu ñëw boo ñëwee ci mat mu ñëw boo ñëwee ci sport mu ñëw boo loo ñëw mu ñëw indil dara waaye boo loo indi téere bi ñëw ci loolu moo lay wane dëgg la lépp la ëmb lépp lépp moo tax ñu ne caaxaan amu ci lépp dëgg la moom yàlla mu ne maa wàcc téere bi bil xaq ci dëgg waaye musaddiqan téere bi di dëggal li ma bayna yadayhi lépp lu ko jiitu woon ci ay téere lépp lu nekk ci kanamam minal kutub assaabiqa ci téere yi ko jiitu woon laa yuxaalifuha wala yubtiluha wuuteel ak ñoom yàqu leen li anna al masdar al jami waxid huwa allahu taala lu tax ndax balluwaay ba téere yooyu bàyyeekoo woon ak téere bii fi mu bàyyeekoo benn la alquran injil tawraat zabuur suxfi ibrahim yépp benn balluwaay la ci allahu subhanahu wa taala la jógoon moo tax mu nekk dëgg lii kay la ci loxo dugg ci tawraat léegi la ci doxo dugg ci injil léegi la ci loxo dugg ci zabuur falsifié téere yi ba def ko lu tolloog ay ñeenti téere wala def ko ay juróom-ñaari téere waaye benn la woon bu dëkk ndax lan ndax fa mu bàyyee ko ci kenn la mooy borom jaam ñi allahu subhanahu wa taala moo tax téere bi ñëw di dëggal doon wax yahuud yi luñ mënta dindi téere bi ñëw di wax nasaraan yi lu ñu mënta dindi xoole li ñu wax ci Moussa téere bi mu ñëwee da koo weddi ba mu set la ñu wax ci Isa téere bi mu ñëwee da koo weddi ba mu set li ñu wax ci Souleymane téere bi mu ñëwee da koo weddi ba mu set yonent yëpp la ñu wax ci Luut la ñu wax ci Nuux la ñu wax ci Daawud téere yi mu ñëwee da koo weddi ba mu set xool li ñu wax ci Mariam nu mu garaawee xool li ñu wax ci Isa ne doom njaaloo la Mariam dafa njaaloo yàlla bu mu ñëwee weddi ko moom sax indi ay preuve yu ne weng yu leer yoo xam ne bu nit ñi nite woon xam ne lii mooy dëgg xoolal yàlla la défi bi mu lancé yàlla ne in ñi waaru ci ñi waaru ci Isa ba bu ko def yàlla ne Isa dafa juddu amul bàyyi di ci yéemu yàlla mu ne da ngeen a dof inna masala isa inda allahi ka masali adam yéen kay bu ngeen di waaru dëgg dëgg dëgg ci aadama ngeen war a waaru bu fekkoon ne nit ñi dañ naan sax yàlla am na doom subhanallah kon kay dëgg dëgg kenn waru ko wax isa kan lan ko war a wax kon kay aadama moo ci yey waaye benn amu ci inna masala isa عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ba pare gis nga lu mu ci teg alxaq min rabbik fala takunanna min almumtarin dëgg gi mu ne ah mu ne ko mooy li sa borom wax bul déngi déngi Isaa mi jaamu yàlla la bu fekkee da ngeen ci yéemu xool leen ci Adam Adam amul ndey amul baay wala sax ñu yéemu ci Hawa waaye gis nga ma ne téere bi daa ñëw di dëggal lépp loo xam ne fekk na ko fi ci téere yi mu nekk dëgg ànd ak alquran yàlla mu ne wa anzala tawraat man yàlla maa wàcce tawraat ci ban yonent Muusa alayhi salaam kitaabu Musa alayhi salaam wa maanaahu bil ibar baatu tawraat ci ibar li muy tekki mooy asharia mooy ay loi la yàlla jox yonent yàlla Musa yàlla joxe ko ci benn montagne bu tudd tuuri Sina yàlla jox ko ko mu def ci hudan wa rahmatan linnas mu def ci njub ak yërmande ñeel nit ñi mu ne ko àtteel nit ñi ci lii loolu mooy tawraat mooy téere yonent yàlla Muusa waaye yàlla est ce que tawraat rek la wàcc mu ne wal injil tawraat bi moom lañ naan bible ah injil mooy bible tawraat mooy tawra injil yàlla moo wàcc injil ci isa ibnu maryam alayhi salaam injil li muy tekki ci yunaan mooy at taalim al jadid mooy jàngale bu bees bi moom sax loolu la ñuy wax mooy ah nouvel testament dafa am moo tax bi gaa yi di wër bi ñuy wër ne jigéen bu faatoo ñaata bu góor faatoo bu góor faatoo ñaata weer walla ñaata at lay toog du sëy tënj bu paree ñu doo ko denc ñu organiser benn colloque bu mag benn congrès bu mag ñu ne dañ koy wër ñu indi tawraat indi injil indi ancien testament indi nouveau testament indi lu kenn xamul indi injil barnaba murqat mooy évangile Matthieu Luc ak Jean ak Paul ñeenti évangile yooyu la soo ko boolee ak ancien testament nouveau testament muy six six yooyu lañ boole def ko téere boobu tudd tawraat moom mooy six six téere yi mu nekk tawraat am naa ko waaye xam nga luy problème bi mooy biñ ne dañuy xool loolu nu mu mun a nekkee ñu woo benn boroom xam-xam bu mag bu tudd Ahmed Didat bu ñëwee mu toog gaa yi di wax di wax di wax suba ba ngoon mënuñ koo gis mu ne ko léegi yow ki organisé woon colloque bi ne ko sëriñ bi kon yow léegi mbaa am nga loo ci xam mu ne waaw ñu ne ko lan la mu ne nekkul ci ancien testament bi li ngeen di wër nekkul ci nouveau testament bi ñu ne ko fan la nekk mu ne mu ngi ci dernier testament bi ñu ne ko ana dernier testament bi mu génne poosam alxuraan daan ne mi ngi nii ubbi leen suratul baqara gaa yi daal di ubbi mu ne leen ubbi leen ay sàngam gaa yi ubbi yàlla mu ne ñi nga xam ne seeni borom kër dañuy faatu ñu bàyyi ay soxna soxna yi dañ leen di ténj ñeenti weer ak fukki fan ne teg leen seen baaraam mu ngoog bu daal di jóg daal ne mbooloo mi réunion bi tas naa ci jóg leen ngeen ñibbi mu ngoog téere bi bàyyiwul dara lépp lu ñu soxla bu ñëwee ci alxuraan fekk ko ci lépp fii la ko yàlla def amul lu ci des lépp a mat lépp dafa mat moo tax mu ne leen fii la yàlla moo wàcce tawraat wàcce injil min qablu lu ko jiitu waaye li ci nekk loolu lan la alxuraan injil bi moo fi jiitu alxuraan moo jiitu tawraat moo jiitu alxuraan waaye ñoom ñépp hudan lan mooy seen sabab wàcc njub linnaasi ñeel nit ñi alxuraan bi lu tax mu wàcc zalikal kitaabu laa rayba fii lu ci tegu hudan téere yëpp dañoo wàcc pour nit jub waa léegi kon lan moo tax téere yi wàcc ba pare te nit ñi jubuñ ah toppuñu ko walla téere yi dañoo wàcc pour nit ñi génn ci lëndëm dem ci leer kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija naasa mina zulumaati nit ñi lànk bañ a topp téere yi kon duñ jub topp libéral yeeg capitaliste yeeg ah waaw loolu lañ topp duñ jub yàlla mu ne wa anzala yàlla moo wàcce alfurqaan te mooy alquran mooy tàqale dëgg ak fen ku bëgg génn ci caaxaan toppal alquran faraqa allahu bihi bayna alxaq wal baatil ci la yàlla subhanahu wa taala tàqale diggante dëgg ak fen min xujajil quraaniya ci ay lay yu ne weng yu alquran indi wal mujizaat ak ay kiimtaan yoo xam ne daf lay poñe kiimtaan yoo xam ne yàlla moo ko def yu ne weng leer nañ alxuraan indi la ko nga ciy teg sa bët yéeféer yi ñoo yay ñoo yay fexe ba jullit ñi réer xamuñu alxuraan gis nga loolu colonialiste bi waxoon ñaari mbir bu ngeen fexee jullit ñi sori ko ngeen am ndam ci seen kaw ñu ne ko ban ak ban mu ne fexe leen ba jullit ñi bu ñu comprendre alxuraan ndax alxuraan bi ma daama alxuraan fi aydil muslimina fekk alxuraan mi ngi ci loxo jullit ñi kenn du leen mën a coloniser kenn du leen mën a noot fexe leen jullit ñi bu ñu xam alxuraan ñu ne ko waa loolu nu muy mën a nekkee kenn ci ñoom bi ñu ko waxee lool moom daa jël kaamil bi rek xottate ko ne xotti naa ko jeex na xam nga ki jiite woon congrès bi Angleterre lan la ko wax yow membre bu dof bi xanaa xamoo téere bi am na ñu ko mokkal di dox ak moom ci biir dëkk da ngeen di fexe ñu jàng ko mais buñ ko comprendre mu ne bu ngeen koy xotti bu leen xotti feu yi mais da ngeen koy xotti ci seen xol yi waaw moom moo am mbër mi ñu sarax kaamil lu mu koy dee ki toog di seetaan làmb ji di rapporter kër di yuuxu ñu di kaamil jox ko ko lu mu koy dee moo tax gis nga bu xaaba bi yor alxuraan bi lu mu koy dee kon na ngeen fexe ñu jàng alxuraan bi mais buñ xam lu alxuraan bi di wax buñ ko mës a dund loolu mooy li am te alxuraan bi mujiza kiimtaan lépp la ci yàlla subhanahu wa taala def al mujizaat al ilahiya kiimtaanu yàlla ah wal uquul an nayira al xel yi leer yi xel yi set yi gis nga chaque jour yàlla buy wax inna fi zalika la ayatin li ulil albab pour borom xel yi borom xel yi ah waaye nag borom xel yi xalaat albashariya allati lam yuglab alayha altaqlid waljumud walhawa alquran dafa ñëw di wax di di leeral xel yi nga xam ne dañoo feebar xel yi am sikki sàkka xel yi nga xam ne dañuy déngi déngi ak ñi nga xam ne ay toppandookat lañ ay al toppe lañ inna wajat naa gis nga ñaata yoon nga dégg alxuraan naan am na ñoo xam ne dañ naan man sama papa ak sama yaay loolu laa fekk ñuy def man loolu laay def xoolal ñooñu la la leen alxuraan di fëgg chaque jour aw yat inna wajat naa abaana ala umma wa inna ala as yàlla mu ne awalaw kaana abaahum laa yaqiluna shay'an même sa baay bu wérul bu dul xalaat da nga koy topp toppandookat wal jumuut ak alxuraan ñëw fekk ñi waw kong nga xam ne du ñu buuse ay ndaa lañ ah mënuñu ci dara ah ñun de barki démb dimanche dimanche la teel la déedéet astaghfirullah jeudi teel la samedi jeudi laa dem benn mariage boo xamante ne ba may dem ndax tiit bi ma tiit ndax damaa tardé parce que damaa toog ñu woo ma sama kër 4 heures et demie ne ma ñu ngi sa buntu kër yow lañ jël si ma loué taxi ñëw ci kër gi ñuy dem ma loué taxi ñu dem ba yegg ñu ne ñu ne ñu takk bi écotaaf la ñu dox ba yegg toog ñu ne ñu timis la ñuy takk ndax heure bi kenn du ci takk sëy tey la xaw ma lan ci ci ci lan weer wi nu mu tuddati déedéet ci olof déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet weer wi weer wi naan rajab lan la non am na beneen wax am na beneen am na beneen kasu rajab ñu ne ma lii kasu rajab la tey la xaw ma lan kasu rajab kenn du ci takk si timis rek timis timis te ñun ñii ñaani ñëw na ah ñun ñii ñaani ñëw nañ ba toog ñi mayee ñëw nañ ñu ne kenn du takk sëy bi xoolal jullit yi fu ñu toll man leen asalaamaaleykum ñu ne waaw man leen fan lañ ko jële ndax yàllaa ko xol la yeneen di ah ñun daal fi lañ ko fekk waaw xoolal kenn gënuñoo gëm nag ñun ay jullit lañ ndax ñun ñu ngi ci diw man waxuma fu ngeen bokk dama ne waxuma du ngeen jullit man benn laaj laa laaj ma ne li ngeen wax nii fan la ko alxuraan wax ak fan la ko yonent ba man loolu laa bëgg a xam yéen jullit ngeen ak du ngeen jullit ak diw ngeen gëm ak loolu lu ko fi indi en tout cas daal timis la ñuy takk sëy bi xoolal leen fu ñu jëm ay jullit yoo xam ne gëmuñu yàlla nee na yonent neen lan la bara xam-xam wax ci bis yi faamal fi kulli yawmin ma chita fa inna al ayaamu kulluha lillah la tadur wala tanfa bis man bis moo ci bon bu fekkee da nga am bis bu bon ak bu baax dama nga laaj nitu aad yi yàlla lan la wax alag naa leen saba layaalin wa samaaniyata ayaam juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti bëccëg ban bis moo ci bokk kon bis yëpp a bon amul bis bu bon xam nga ban lan moo bon mooy bis bi nga def lu bon yow booboo bon ci yow ah am na koo xam ne boo ko laajee waaw ban sa bis yi bu ci gën a neex mu ne ba ma ajee màkk ba ma takkee jabar kon kay kooku bis yooyu baax na ci moom nan leen yàlla jubal waxtu waa ngi dem te aaya yi des na borom bi nee na subhanahu wa taala man yàlla maa wàccee alquran ma tàqale ci dëgg ak fen mu ne inna lazina gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi bi ayaatillaahi aaya yàlla yi lahum ñeel na leen azabun mbugal shadid bu tar gis ngeen kon weddi aaya yàlla ah inna lazina kafaru bi ayaatillaahi ñi weddi aaya yàlla yi lahum azabun shadid yàlla nee na mbugal mu tar moo leen di xaar wallahu yàlla azizun ku not ci nguuram zuntiqaamin borom fayu la ëllëg day fayu ci jaam ñi kon ku yebu def lu lay allahu subhanahu wa taala mu ne inna allaha yàlla laa yaxfa nëbbuwut alayhi ci moom shay'un dara ay yi de ni mu koy firee neexuma te waxtu wi dees na inna allah yàlla laa yaxfa nëbbuwul alayhi ci moom shay'un dara fil ard ci suuf wala fi sama yàlla dara dara dara nëbbuwul ci moom lépp mu ngi ci teg gisam di ko gis amul lu nëbb fan mu ne fil ard fi nga nekk wala fi sama du ci kaw asmaan dara laa yaxfa alayhi shay'un fil ard wala fi sama huwa moom yàlla allazi mooy ki nga xam ne yusawwirukum moo leen melal fil arxaami ci ruhu mu jigéen ñi kayfa yashaa'u moom yàlla num ko soobee laa ilaha amul benn buur illaa huwa ku dul moom al aziz mooy ki not ci nguuram al hakim mooy ki xereñ buñ ñëwee samedi insha allah ñu jaaraat ci inna allazina kafaru ba aaya siis bi insha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh